bismillahi mina min rajim yi bisimilahi rahmaani rahim yi sant yàlla julli ci sangub sang yi Seydina Mohamed sant suñ ñaari waaju sant suñ wasila Cheikhul Khadim di leen nuyu baax di leen ziar yéen ñi nga xam ne saa su ne yéen a baaxoo di jàkkaarloo ñun ci Waarwi TV jigee ci nuyoo bi nag suñu kilifa sëriñ Mountakha Bachir yàlla na fi yàlla yàggal lool fa Fall te wérali cëram di nuyu bu baax di ziare suñ seex jëmb Fall yàlla na yàlla yàggal lool Fall te wérali cëram di mboolem kilifa diine bu nekk ci departement bi ñu ngi lay nuyu baax di la ziare te di la bal àq yéen ñi nga xam ne su ne da ngeen di toog di jàkkaarloo ñun ñu ngi ba tey ci waajtaayu waagalu Cheikh Abdou Lahad Mbàkke mi nga xam ne kenn la ci njabootu Serigne Touba nekk ñetteelu xalifa Serigne Touba bi muy jël xalifa gi nag fekk foo xam ne ci réew mi doy na lool waar lool lool ginnaaw bu magam ju baax ja simbee liggéey bu rëy bi muy jumaa ju tedd ji ak yeneen liggéey yoo xam ne mu ngi ci yoonu murid ci njàmbaara du Abdou Lahad pasteefu Cheikh Abdou laat bëgg goo xam ne bëgg na ko yàlla yonent bi ak bàyyam bu baax bu Serigne Touba ndax dañuy wax naan day wax naan sëñ Modou Moustapha defoon léppam jël sëñ Fallou def ko léppam kii mooy ba waajuram kii mu def ko Serigne loolu lépp mooy liggéey Cheikh Abdou laat kër gi ñu toog nga xam ne fi la ñuy waxtaane muy daaree kaamil néew mu amul ci àdduna de waaye bu amee bariwut suñu xam-xam nag gudd fii ne ngay gisee kër goo xam ne këru alxuraan la bépp xam-xam bu waaye bëgg ak ci làng boo ko mën di bëgg boo dikkee ci biir kër gi da ko fi fekk lépp na ci liggéey Cheikh Abdou laat boo xoolee dëkk bi di fi nekk yëpp liggéeyam ni ma naan vision moo gudd kon nañu ñaan suñu borom yàlla yokkal ñu leeram bu baax taas ñu ci barkeem ban gën a mën a tënku ci li nga xam ne mi ngi koy dénkaane rawatina ñu ndaw ñi nga xam ne mu ci dëkk bi sell bi di Touba tey nag dana ànd ak sunu genn gan duñ wéet ci jotaay bi muy koo xam ne kenn la ci njaboot si blaat kenn la ci ci bëgg-bëgg Cheikh Abdou Lahad kenn la ci pas-pas boo xam ne da ko pas sa diggante ak Cheikh Abdou ndax li sama baay bu baax ba naan nit da nga am pas-pas te pas-pas mooy lépp pas-pasam nag moo waral mu mel nii mu mel nekk dong rek kott dong rek liggéey Serigne Touba tax ko jóg waaye nag da ku ne am nga bunt buntam muy Cheikh Abdou Lahad Mbacké jaar la ko suñu yaay ju baax jooju di ko ñaani fan gudd lool te wér soxna may laat li ma naan taabu ma tub taabu te du taabee ko nekk yaay jaboot saa boo ko dikkee këram mu dalal la tatagal la ba pare teral la kooku nag mooy Cheikh mooy soxna May Laat ndax buñ nee soxna May rek oo dëgg yàlla ñun presse bi yëpp xam nañ kan mooy soxna May Laat ci pëstéefam rawatina ñun soxna jaara yi ñu bàyyi suñu gan mu nuyoo salaamaaleykum soxna si nuyu la bu baax ziyaara la présenté soxna maam jaara ñu ngi lay nuyu di la ziar di yeesal njëgal di tub di ziyaare bu baax a baax bu maa lim tey duma lim mm-hmm. su ma limee damay juum dama naan maa ngi nuyu àdduna wërngal képp ma nuyu sama xalifa général kullu murit di nuyu ziar ñëpp di baalu àq ñëpp nag di baalu àq ñëpp ñëpp jéggalu di tuub bu baax di baalu àq ñëpp di ziar sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér di sant bu baax a baax soxna Bale yàlla na fi yàgg te di sant bu baax bu baax a baax a baax a baax a baax di sant soxna may laat sama yaay yaay laa koy wax mooy sama yaay macha allah. di sant daal bu baax daal mun ma wax ndax wax ji dama koy xaw a tey xaw a gàttal tuuti ndax fi fi nga génn ak man nee naa màggal gi moom bu ñëwee rek dama naan damay defe ne moom. Mhm. waaw Cheikh Abdoulaye kenn ci man moom man moom defe ne man dong man dong maa ko <laughs> man kese la ndax daf maa defar ci lu baree baree baree baree baree damaa nekk nit koo xam ne Cheikh Abdoulaye daal damaa defar daal ba may gone ba léegi daal ak bëggam. ak copp ko ak roy ko dafa yàgg ci man dama ko yàgg roy bi may xale ba tey ci caractère am ci dignité ci fonk kàddoom ci bëgg lu baax waaw moo tax ah ñu àdduna gépp di ma Fat Dior mu Cheikh Abdou boo ma waxee Fat Dior rek ma la wuyu danga naan Fat Dior mu Cheikh Abdou ma soog a gis sama bopp ne Fat Dior moom toog da ngay gis ku ma posé question ci musóor gi ci colin gi ci lépp ndax dañ ne nit ki boo ko bëggee danga koy nuru da ngay jéem a nuru di xool li muy bëgg nga di ko doxee. mooy na muy solo na mu mel ci aw yara yaramam ak la muy bañ am am bañ am looy ak looy bëgg looloo tax ñu bari tur yi ko wax Fatou mu Cheikh Abdou ma ñëw nag fekk fi taawam bu jigéen ba sant sëñ Sidi bu baax fekk fi taawam bu jigéen bi macha allah gën maa naabaat ci boppam it gën maa yaraat ci kàddu it gën maa defaraat dama ma doomi gor nii lay toogee doomi gor nii lay waxee nii lay jëfee muy soxna may laat yal na ko fi yàlla bàyyi soxna may laat yal na ko fi yàlla bàyyi. nii la nit di ma gis ko mu jël liggéeyu baayam bi fonk lool sax nag. fonk lool lool lool lool loo wax mu ne daara jam loo wax mu ne daara jam loo wax mu ne alxuraan loolu rek ko yitteel kenn dégg ko ci dara alxuraan rek loo wax soxna may laat alxuraan rek ko ñor ak daara alxuraan yi lépp luy jëmmal daara wala luy tere xel daara soxna see ngi ci ma ne xaaral nag nit ki boo ko bëggee da ngay xool ca ca ca fa mu jaar nga jéem faa jaar looloo tax xam di ñuy wax Fat Joor mu Cheikh Abdoulaye waaw nga bu ne daara ji dama la ko marineere sa daara la may tëdd ba guddi di ko xalaat naan daara ji chaque jour damay bëgg mu avancer ñu koy dégg ma bëgg daara ji àdduna gépp gépp gépp mooy ndonga daara yeeg yaayu daara yi ñëpp ñu geesu te xam ne Cheikh Abdoulaye def na belal dara daara yi alxuraan ndax ku ne xam na ne bi fi jógee belal lu jóge tàggoo fa xoolaat daara ja gëstuwaat tegaat la fa nekk kon donc ñuy geestu belal bu baax ndax mbir nga fa soxna si nag am fa liggéey bu yéeme boo xam ne daf ko baa bëgg a def ndax teggiwul tànk benn yoon yeesalaat belal ba mu gën a bees rek lépp loo xam ne mi ngi jëm ci belal di ko yeesal ma nga cay dox man nag bu ma toogee ak moom dama koy bàyyi xel ci ay waxam ca la bàyyam bëggoon ca la bëgg ca lay dox loolu tax may yeesalaat sama kii ci moom bu baax waaw Cheikh Abdoulaye dafa fonk dafa fonk saa bu ñëwaan ci këram gi nee na gone yi dañ fiy tëdd ak photo waaw loolu la soxla may laat defaat mhm. jël belal defaraat ko ba mu bëgg koo defaraat ba ñëpp teg ci seen bët daare alxuraan ba mu gën a jëm ca kaw loolu lay loolu lay mébét pour def ko kon donc ñun ñi nga xam ne ay ndongo kase lan dañuy jéem rek mënaguñu dañuy jéem rek waaye am nañ mébét moo xam ne ci biir xol bi la nekk ñaan yàlla mottali ko daal. am na loo ma dégg sànq ne waaw man de su ma sañoon ñu ëppale belal di maa fay ëppale man Fatou Dior monsieur Abdoulaye su ma sañoon sama bëgg-bëgg. Mm-hmm. kenn du ma ëppale belal ma def fa. dama koo dogu ñaan ko suñu borom lu ñu fay def bëgg naa man man Fatou joor ma yëkkati sama ñaq def ko fa man ma xam ne lii sentir naa ne Cheikh Abdoulaye Fatou Dior mu Cheikh Abdoulaye kii na ko belal def na ko belal ci ndongo daara yi ci kërug daara yi fa nekk. xam nga santi dama koy kii daal dama dama bëgg daal belal man ma gis ci sama bopp daal vraiment. Mhm, côté boobu. Euh, soxna Fatou Dior mu ndaw ñi ñu ci bëree bëri fàtte fi ñu bokk ñu baal ma ci kàddu gi réer. wax ji ngay gis ci internet wax ju bon ñi ñuy waxante wuute ñun jigéen ñi nga xam ne ñooy magasin bi nga xam ne ñooy forme ñooy denc bagage te jigéen mooy néeg bi nga xam ne mooy formé bu ñu dellusiwaatee ci yow macha allah ndaw nga nu nit di mel mel nga ko nga jël sa jëm yëpp jox ko Serigne Touba Cheikh Bilal lan ngay ñaax ndaw yi nga xam ne ñi ngi jàkkaaroog yow. waaw ñu defaraat toogaay yi comme li may wax chaque jour ñu defaraat toogaay yi yaraat suñu bopp surtout ma jigéen ñi. ndax lu fi baax rek jigéen la nañuy yaraat suñu bopp bu baax a baax a baax wéetal suñu bopp yaraat ko te fàttaliku chaque jour suñu jaaj bokkuñu ko kenn nañu yaraat suñu bopp yar suñuy jëm yar suñuy jëfin yar suñuy waxin ak suñu kol ndax Cheikh Abdoulaye da daan bëgg ko yar boppam danaan bëgg jëmm ju nekk nga defaraat sa toog ay yaraat sa bopp bu la xoolee nga xam lam la wax bu la xoolee nga xam lañ jëf asgoor noonu lay def te société bi fi mu ne nii dafa yàqu li xew ci réseaux sociaux yi kenn mënu la ko wax ngàññante ngàññante bi weerante bi te asgor du def loolu nañuy sàngante sutura te bañ ja xaawi doomu aadama lépp loo war a wax nit ki ci lu ñaaw nga xool ko ci sa bopp ba pare su ko wax euh, ci yow te nit ki lu mu dem ba di ko wax na ko xool na ko natt ci boppam solal ko boppam ba pare soo ko di ko wax te ñuy defaraat toogaay yi nag ci kër yi ci waxin yi ci sol yi nii ci jëmm yi yaraat suñu bopp ci lu gën a bari soxna jaaram ndax ñu ci mujjug jamono li fi ëpp lépp jigéen ñi ñoo ko fi def lu baax jigéen la lu bon jigéen la kon jigéen ñi nañ defaraat seen toogaay yi bu baax a baax dellu si nag suñu bopp ci yàlla bu baax di xalaat suñu jaag gi bu ñu tiimee du ñu jullee bokku ko kenn lu waay ren di rek li may wax sa loxo lay naaj bu ñu la tëddee rek defe naa sa jaag gi teg la fa. defe naa loo liggéey rek moo la fay fekk kon donc dañuy xool suñu diggante ak suñu bàmmeel lu waaye di def na xalaat digganteem ak bàmmeelam nay xalaat digganteem ak yàlla ba pare ndax chaque jour booy jiital sa diggante ak yàlla ñu wàññi yàqante bi ñu wàññi ŋàññante bi ñu wàññi def lu bon li ñu wàññi sëriñtu bi ak yu bon yi fii rek la am ci àdduna lépp day jeex lépp sept mètres percal moo ñuy topp looy jaay nag nit lenn ne maa la ko ëppale man dee ma ëppale sama jaag ba buñ may jullee daa ngi xalaat chaque jour ñu may jullee témoignage mm-hmm. jëfin ya la ma fa liggéey loolu laay xalaat kon nañuy xool suñu diggante ak suñu bàmmeel mm-hmm. surtout mm-hmm. boo ko dee xalaat rek ñu defaraat toogaay. am na Covid bi yaroon nañu waaye daa mel ni loo delluwaat ba nekkaat waaw il faut que ñu raxas xol yi nag. xam nga Covid bi takk nga masque bi loolooy suñu borom nañ noppi nañ takk masque yi nii noppi leen. pour ñu yar suñu bopp ku nekk daal di noppi boo jubee ni sax daal di noppi loolu pour ñu yar suñu bopp pour ñu yaraat suñu bopp la mais duñ ko xam nit ki mën ngaa nekk ak moom sax di ko yar te doo yëg ne yaa ngi ko yar. Mm-hmm. bu waxee nga fenetal changer domaine man nag jigéen ñi laay gën a blâmer jigéen ñi ndax dama naan jigéen magasinu yàlla la comme li nga wax ak soxna jaara kon ne jigéen yi di defaraat toogaay chaque jour yor jikko ju baax wàññi nag mees bi ak greffage mm-hmm. loolu moom lu gën a déranger la loolu moom su ma sañoon jigéen Sénégal gépp àdduna wër nga këpp greffage pousse xef pousse xef we yokk ku dugg ci barab bi sangu suul bi tey boo ñëwee di nga xam ne greffage ak mèche eggul fenn kon nañ defaraat jëmm yi nañ defaraat jëmm yi bu baax a baax boo ñëwee ba xool saako greffage yi nekk fii bala day day daw nga xool kii nga xam ne daa wàññeeku nelawooyee fuddan yaramam yu rafet lool dara nekku ci boobam bi weex tàll mu xalaat di gën kooko xamul kañ la xamul fan la la lay fekk ndax kenn xamul fan la ak kañ la kon nañ defaraat toogaay bu baax kon sama mbokk jigéen laay gën a ñaax ñu defaraat ndax jigéen jigéen a jur lu nekk mhm. soxna jaara xam nga dèjà yaa ngi ni yiw macha allah ku la gis sa muuraay bu rafet bi macha allah mën ñëw solu sax te mm, xam nga euh, du ñu bu la neexee sax mën ngaa bañ a muuru musóor sa musóor gu waaw yiw xam nga waaye nag li ma ciy gën a xaw a soob kii tuuti yàlla buñ a màggal dafa jot nag mhm. ba nga fekk leen ci ñuy pause xef yi mhm. ñii nga ca weya ñii nga ca léttu ba waa léegi la ngay def ca xeef yaak weyaak dal kër kër ga ngay dal jëndee ko paquet ndox fekk kër ga ngay dal nga jox leen ko te yàlla tax. waaw xam nga ñi xamul ñoo koy waaj. waaye am na ñoo xam ne xam nañ xam goo xam ne dañ ñaan ku téemaa uti musóor gu rëy musóor Cheikh Abdoulaye bëggoon na musóor de. Mhm. téemaa xool la bëggoon ca daaray alxuraan def ko Cheikh Abdoulaye bëggoon na alxuraan de. loola nit ñi di sàkku loola nit ñi di sàkku waaye du damay puus ci màggalu Cheikh Abdou Lahad damay pasteelu ca màggalu sax damay jongoma ci màggalu Cheikh Abdou Lahad nax nga sa bopp mm-hmm. Cheikh Abdou du la gis si du la mës a gis du la gis fenn mm-hmm. Mm-hmm. ci wàllu ndayale yi ba tey nag soxna si eh, gis nga jigéen ñi ñu koy defee boo jëlee ndayale yay yàq yi ni yàq ci xew yi lan nga leen ci ñaax waa xam nga ñooñu dañoo xaw a réer tuuti ndax eh, xam nga boo boo jëlee sa doom la ko nga ne da ngay xew xew jot nga ne da ngay xew da ngay ndeyale da ngay magale yàq nga ko toog ba sa doom di sëy doo ka muy sëyal bu doolee lu nga mottali ko moo ëpp ndeyale ga ak magale ka mm-hmm. jël xaalis ba jox ko sa goro bu góor ne ko téewaatal sama doom mm-hmm. ndax toogaay ba rafet man ci sama xel mu gàtt mm-hmm. loolu laay xalaate waaye du yaakaar may jël ndeyale ki magale déedéet su ma naree ndeyale ki magale daal ma def ko ay téere alxuraan wala ma def ko yére rafet jox ko ndongo waaye du ma géew te Cheikh Abdoul Ahad di ma koy fekki Touba ma koy fekki daal wax dëgg bëgguma ko te duma ko defloo kenn su ma sañoon nag jigéen ñi ni ñu tuddee femme VIP au Sénégal ñu defaraat toogaay lambu diis amul amul fenn de. lambu diis amul ci biir jaag ji de. lambu diis amul bàqee de. Mhm. borom lambu diis doo dem bàqee fekk ñu ne kii lamu or ba mu takkoon diis na de oto ba mu yoroon rafet na. kon dañuy xool suñu diggante ak suñu borom doone 4-4 bi rafet na ca bàq ya de diwa ak diwa nga nee déedéet dañ naan bàq yaa nga ne kon boog nañu seet suñu diggante ak suñu borom fu ñu toll di jéem a roy nag Cheikh Abdou Lahad bu baax ndax nit boo ko bëggee danga koy roy jigéen ñi ñu defaraat toogaay yi di yeesalaat di tuubaat nag chaque jour bu ñu xëyee di tuub di yeesal nag tey defaraat toogaay te wàññi bëgg-bëgg yi or bi demul fenn. oto bi demul fenn kër gu rafet bi demul fenn mënoo fexe ba benn lal nga ciy tëdd. waaw xeebaate gi ñàkk xam àdduna la koo gis xeeb nit rek dafa am lu ko dab. jullit boo gis mu xeeb nit yëkkati boppam ne la maa la gën dafa am lu ko dab loo xam ne du koo jomb te nit bu la dara jombee rek mhm. da ngay bajantu man ki may bëgg mooy ki may xii li may xiir ci yoonu Serigne Touba ki may bëgg mooy ki ma gën a doonu taalibeem ki may gën a bëgg mooy ki ma gën a bëgg kiiw ki may bëgg mooy ki may gën a xalaat sama diggante chaque jour ma ne tey la wala suba la mais ki may jaay oto bu rafet wala ki may jaay kër gu rafet wala ki may jaay ne yaa ma ëppale nax nga sa bopp man daal maa ngi xalaat sama diggante digganteeg bàq ya ak bu may dem armeel ya ak yooy daal dafa mat a xel bu baax waaw. la Cheikh Abdou Lahad na xam nga xam nga <laughs> xam nga xam nga xam nga nuru nit ban naan. da da koo jur ba ba ay doomam boo toogee ñoom sax ñu lay jaabale ak moom loolu sant yàlla la jafe na ci dëkk bi foo toog nit ñi di wax ndax waa kër Cheikh Abdoulaye boo toogee doomi Cheikh Abdoulaye ñu naan ndax diw yaay am na wala moo ko jur wala dara ci comportement ci lépp kon loolu sant yàlla la fu la fekk ci mbooloo ne la mbàkke te simple benn doomu aadama bu tekkiwul dara nga Cheikh Abdoulaye am lu mu def ci yow loo xam ne doo ko mën a wax daal. ci communication ci yar ci mën a tollale ñëpp nag ci mën a pour tollale doomu aadama yëpp yaraat sa bopp boo dégloo soxna may laat lu bari da ngay xaw a xam àdduna ci lu bëree bëree bari di tanqam lu aussi di tànqam Cheikh Abdoulaye li ma defal bari na lool lool lool ndax nuru tuuti jëmmam rek dafa xaw a yéeme te loolu ku mu dal ci nit dafa jafe daal. loolu dama ciy sant yàlla bu baax sax dama ciy sant yàlla bu baax ndax samay moroom a ngi fi Fatou Cheikh Abdoulaye bi bu ma ko déggee sama àdduna <laughs> damay damay neex daal da ngay gis nit lu mu kilifa ci dëkk bi bu bëggee lu ma neex ndax Fatou Diop Cheikh Abdoulaye ma gis sama bopp mënu ma wax ci Cheikh Abdoulaye leen daal ndax nit a ngi fi yàlla xiiru la ci Cheikh Abdoulaye ay jigéen a ngi fi macha allah suñu borom xiiru la ci Cheikh Abdoulaye kon yàlla mi ma jagleel lii xaw ma lan la damay santaat yàlla bu baax julli ci yonent bi bu baax di sant sama ñaari waajur bu baax a baax a baax sant soxna may laat nag bu baax ba mi nga xam ne dalay teg ci yoonu saraatal mu saxiima delloo si la daal dalay delloo ci lu bari dalay delloo ci lu bari bari bari soxna may boo toogee da nga yaraat sa bopp ci moom lu bari bari bari bari ci yiw gi ci simplicité bi ci xam àdduna bi. ci fonk doomu aadama fonk gi respecté nit ku mu gis dalay cëral. yëkkati la teg la ca kaw lu mu gis da lay teg la ca kaw di la neenge neenge am fu mu la teg foo xam ne loolu dafay day tax nga yaraat sa bopp man day tax man fu ma toog damay yaraat sama bopp te dara jaayul dara naturel bi rek lay génn kon loolu sant yàlla Cheikh Abdou Lahad nag moom dama koy ñaanal dama koy ñaanal fu ma toll di ko gën di roy rek di xoolam daan bëgg dëkk li nga xam ne gënoon na ko bëgg su ma ko mënee ma ciy daw li moom gënoon na bëgg rek ndax nit ki boo ko bëggee da ngay xool li mu bëggoon nga ko nga ciy daw doo ko fësal nag danga koy doo ko mbubboo it danga koy nëbb du lu ñuy wax ndax as gor du fësal lenn day am yoo xam ne danga koy camoufler rek nëbb ko soxna jaar. du yàq daal jotaay bi waaye ñu ngi jaajëfal lan nga bëggoon ma laaj la ko na te sunu xel yeggu si parce que des fois nit dafay fat waaw lu ma bëggoon nga laaj ma ko man xamatuma lu may wax ndax tey gisoo tey dafa mel ni mënumatuma wax ndax sama bis bi dafa dafa dama naan maa moom bis bi man dama naan maa moom man dama ko jël rek dippoo sama bopp. rajo yeeg te yeeg ñëpp Fatou Dior mu Cheikh Ndalaat da ngay gis ko toog fee sax may ma dédicace ah maa Fatou Dior sa màggal gi ñëw na de loolu rek sant suñu boroom la di sant ñëpp nag di sant ñëpp waa Europe yi waa Amérique yi ñëpp laay sant bëgguma bàyyi kenn ku nekk yaa ngi am mébét pour Fatou Diop def dara ci kii bi ma nga taxaw maa ngi sant ñëpp nag di woote waat nag nit ñi bu baax mbokki Sénégal la ma waxoon maa ngi koy waxaat ñu defaraat toogaay bu baax salaat bu baax yaraat suñu bopp bu baax bàyyi xeebante bi te lu ñu am ñu def ko ci daara alxuraan wàññi puukare gi surtout jigéen ñi nañu wàññi puukare bi ak lam bu bi nañu wàññi puukare gi jëm ci wàcc ci daara alxuraan yi liggéeyal suñu boroom nañ ko ci nañ ci bàyyi xel bu baax a baax waaw loolu daal laa amoon lu moo xam ne dama koy ñaaxaat sama mbokku jigéen ñi bu baax a baax a baax bu màggal gi jotatee avant màggal gi lu waaye am di ko jublu ci daara alxuraan yi te yàlla rek tax. te yàlla rek tax nag nit ki nag lu muy def da ciy boole yàlla rek tax maa gërëm ñëpp daal bëgguma lim ndax su ma liggéeyee dama naan faat bu joon mu Cheikh Abdoulaye bu Sénégal la man aw ma noonu Sénégal ñëpp a ma bëgg fu ma taxaw su ma nee boo ma taxit boo ma fekkee justice Sénégal danga naan macha allah muy procureur du juge ñëpp ma bëgg aw ma noonu daal Sénégal ba fekk ma gendarmerie aw ma noonu Sénégal nga ñëw Touba gi macha allah nga ñëw ci waa kër Cheikh Abdoulaye yi ñëpp ma bëgg. kon donc loolu sant yàlla la. na fi yàlla def jàmm. yàlla di ñu sàmmal boppam te yàlla taxawuñu. ñu nekk ci lu baax ci daraje Cheikhul Khadim ñu yàgg euh, màggal màggal gi xam nga Covid bi ak mbas bi denc ci jàmm ak salaam soo soxna jaare yow sa liggéey bi fi nga bëgg a egg yàlla na fi yàlla eggal ci daraje Cheikhul Khadim yàlla na yàlla ful lépp ah, nekk ci ak réalisateur bi sama ginnaaw yàlla na saane yàlla yàlla barke lépp ci daraje Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kontaan naa trop. jërëjëf soxna Fat Dior bu Cheikh Abdou Lahat euh, Sané mooy junne caméraman mooy borom cadreur bi nga xam ne macha allah moo ma dal rek di ma jàppale ci waajtaayu màggalu Cheikh Abdou Lahat dañ nekk ba léegi xol tooy na ndax li ne ci xol dafay feeñ ci kanam li may wax toujours ndax boo nekkee ndaw rek yàlla bëgg la xirtal la ci mag ñu baax ni na sant yàlla bu baax waaye nañ sant waajur yi nag ndax nit du man rek waajur waar a yar teqantal la ba nga man caa mel kon nañ gën góor góorgóorlu ñun ni suñu yaay def ko ci ñun ñu def ko ci suñuy doom loolu mooy l'essentiel bi parce que foo génn fu ne rek ku la xool dana xam ne yar na la yow góor góorgóorlu ba def ko say doom ñu gën a sàmm gën a bëggante li may wax toujours nan bàyyi yàqante gi mbubb mi nga xam ne boo ko solee du la jot bu ma ko solo soxna Fatou Dior bu ma ko ku ne di ma naan bu ma dikkee dina nettali ci yow diw daa bon naa xam ne man maa bon kooko bon ñu gën a góor kon nag waajtaayu Màggal Cheikh Abdou Lahad di leen dikkaloon tey tey di ñett fan eh, ci weeru juin nekk deux 2021 ñuy ñaan suñu borom 2022 gii nag ñu daan ko def nan ko daan defee nan ko xamante woon na yoonu murit xamante woon màggal sikar naan kafe waxtaane mag ñu baax ñi jàng ci xasida yi ak alxuraan yi tey ku dugg ci daaray kaamil gis nga ni wàccee kaamil yeeg xasida yi ni jàng di ñaan Cheikh Bilane Mbacke yan yaar yoo koy leeral di ñaanalit sëriñ Mountakha moom sëriñ Bassirou yàlla na fi yàlla bàyyi ba semb bi nga xam ne semb na ko mu yeggale ko ci barke Cheikhul Khadim muy vision bi nga xam ne ci vision Cheikh Bilane la bokkoon jërëjëf ba beneen yoon incha allah ci barke Borom Touba